ca combat Bross sëgg Boy Ba eh Bross doole doxul jàmm Bross a nga yootu Boy Ba kolifam jambe rekorte bante jom ne maaf ran daxa nu ngak ma sader na moo fi Taxi hey doomu Mar Fafa Koffi mbaru Moussa Diarra Ba mbaru Yvonne Marie Ba hey Ndiack Sène nee na ko nag yow laa ilaha illallah nekk fogu mbaag Serigne moom dinaa baras nee na ko ne noppi ordinateur hey hey dole falaw yalum hey borosel bandi borosel don bo tok de na fi lanka ay ca borosel bandi petit jam juuf ba tey bu ñaaxar Massa ngay dox ca kawam Petit Jam Diour nanguut a taxaw ay bajantu ale doole felaw yaalum Petit Jam dox ca kawam mbaru Ivan Mari bi Daaru Moussa Thiaré Thiaré Moussa Beken Jam Diouf boros boros hey daan na ko bien fait vite oh, oh, boros nee na daam doole mu ne fii moo ko moom caayi mbari Moussa Thiaré bi acca demi final sok oh, oh Ndiak sen moge monge bunu bunu. Yak sen boros. moge sen bulu monge bunu ñuul ge bulu xonk li. Fii ci campement ngee ko. Yak pandi borosel bandi. Leye Cheikh Tidiane waak Feleer. Yuure Sangomar xañaane moo fer. E Fuuta Njoota te mbir maak ne gen na ñoojoor le grand champion Cheikh Tidiane ñu ngi koy bëgge Bross Sel Bandi njaak seen bu Mbuur Bross bi waaye mbaru Yvonne national bi bom Bross njaak seen moo ñu woon gannaaw mbaru Maam Demba Samone mbaru grand Pape ndeysaan demi-finale la damay bëggee suma toos suma mag suma xarit Grand Ousmane Mané bëggee naa ko Grand Omar Mané kontaanee naa ko Grand Mamadou Ndong borom Sing Boyar maa ngi koy bëggee de cey bii demi-finale bu alese ñaari ndaanaan lañ ëppante wuñ ci doole satisfeleere laa ilaaha illallaah président na Jackson hoho président na Jackson Jackson daan na Brosse du moins Jackson daan na Brosse maa ngay juum de